أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نجي مع الجبران سبحانه وتعالى ديكو باك ديكو قرم دينيان يالا جيغل نسني باكار waaye mu nangul ñu li ñu ko jaam ñuy julli day salmal ci al rasul muhammad sallallahu وسلم ديكو نيانا الجام موم اك الصحابة التابعين له بإحسان إلى يوم الدين بقي كوم نيغن كو خامي سابو تفسير اب دير لي لي دانيي وقتان ولا بن جانغات ci sunu walu diine tey mu tombeek li nu war a waxtaane muy xujjatul wida aju yonent bi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne li ci nekk ci ay dars ci ay jàngale ak njëriñ jullit bu koy bàyyi xel sa dund dana nekk dund bu barkeel yàlla nañ ko yàlla defal hijjat bi daa dafay yóbbaale wafaatuhu sallallahu alayhi wa alihi bu la neexee nga ne at yi wala jëf yi mag ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam ni dund yonent bi lépp dafa fess ak sacrifice jaay bakkan jaay alal jaay jëmm ngir lan ngir da'wa al-islamiyya ligay boobu nak yonente bi sallallahu alayhi liggéey na ci vingt trois ans yi mu def ci Makka ak dix yi mu def ci Madina loolu mooy risaalatuhu sallallahu alayhi wa sallam liggéey na ba liggéeyam mat nit nag bu liggéeyee ba liggéeyam mat la ca mooy mu retraité dem noppalu ji bu dee xaalis la amoon mu lekki ko jëmmam mu noppal ko kon tammat amalu daawa alislamiya wa iblagi risala wa binai mujtamacin jadid ala isbati aluluhiya woote gi mat na te loolu lañ doon ñaan risaala bi jot na 23 ans yonent bi di tabax communauté islamique nga xamante ni ab société la boo xam ni bu paree amul lenn ci kaw suuf lu koy nuróoti boobu société ñu ngi ko tabax ci digg mbooloo moo xam ni dañoo waxoon ni yàlla du kenn amoon ay yàlla yonent bi di xeex ak ñoom di weddi di bañ ba tey ñu saxal mu melni bi wote bi jeexee dafa am benn téléphone bu téléphoné ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ak benn yëg-yëg bu feeñ ci dund yonent bi ci jëmmam ci bëtam noppam ak xalaatam di ko yëgal ne ah sa liggéey nag mat na sa liggéey jot na la tey topp daa dégg koy xam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónnent bu siiw bi mu mujj yónnee mi ngi ko yónni benn sahaaba bu ñuy wax Muaz ibnu Jabal radiyallahu anhu yonent bi woolu Muaz mu ñëw mu def ko ambassadeur ca Yaman yebal ko fa معاذ إنك muaz innaka تلقاني بعد la هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذا بكاء شديدا صلى الله عليه وآله وسلم يننتبه معاذ يقول دم لي يني waaye amal na yónnent googu boo ci demee boo ñibbisee yow muaz amal na dooma fi fekk amal na danga romb sama jàkk ji ak sama bàmme sallallahu alayhi wa sallam muaz xol bi tooy mu jooy jooy yu metti ala firaaqi alxabibi صلى الله عليه وآله وسلم كون يلنت بي خمون نني بو نكوي شول دو شري جاتام لخ يالا خمون نكو لب لن موتخ منك أن تمر بمسجدي هذا وقبري كون خمون نني دمين كشول فو جاكا مكي معاذ جوي ndax ku mel ni yonent bi làmp bu mel ni moom di dund moom ba ci yàgg mu nar a fay waxuma sax yonent bi mais soppe boo ko amoon ngeen toog bis mu am lu mu la wax rek soo moytuwul sa rangoon dina tuuru mbokk yi neex na borom bi ngir mu wan yonent bi simaara daawati bëgg koo wan nag meññentum woote ga mu doon woote ci yoonu yàlla nga xam ni jafe na ab yonent am li muhammad am sallallahu alayhi wasallam ndax woote googu yonent bi dafee sonn am ci coono am ci jafe-jafe te loolu dem na presque vingt cinq ans yonent bi dund fitna mësta noppalu mësta nelaw ba yandoor mësta toog ba xelam dal jamono bu nekk mi ngi ci liggéeyal islaam ak dimbal jullit yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi dem ba xam ni ak nii lay tàqalikoog àdduna dem wuy ji boroomam lan moo ko defe quelque formalité àggale ko su ko defee mu dem ca ajjanay borom bi gane ji ko gane gu dul delsi mbokk yi bisëb samedi ci weeru zilqaada la yonent bi yëg nag ne war naa aji ajam bu jëkk ngeen xool yonent bi juddoo màkka yaroo màkka yàlla yónnee ko Màkka mu war a aj ajam bu njëkk benn yoon la yonent bi aj ci dundam mooy xijjatu widaa bi mbokk yi yonent bi woo Bilaal ne ko dama bëgg aji ren waxal jullit ñi ko préparé ne ñëw ñu aji Bilaal yëgle saxaaba yi yépp ku nekk woo nga sa mbokk ne ko ah bu leen tardé ne yonent bi daa bëgg a aji te nee na ku bëgg a dem mën ngaa ànd ak moom ñu wax ko dëkk yi wër Madina ba xabar bi àgg Makka dem ba Taif dem ba Yaman dem ci dëkk yépp jullit ñi ku ko dégg rek ne kenn du ko nettali ñépp waay góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi buur yi baadoolo yi jaam yi ñépp war a ànd ak alxabibu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañoo jékki ay fan madina tàmbalee fees cortège yaa ngi ñëw fas yaa ngi ñëw nit ñaa ngi ñëw di juuru lan la ñëw bëgg ànd ak خير خلق الله غير دمتي اب كعبة المشرفة جوخسين اج مبي مدينة فسدل ينين دك يسوري مدينة تجد مكة نفدك نيون دنيو دم خاري ينتي بصلى الله عليه وسلم مكة am ñoo xam ne ci yoon yi la ñu nekk ne dañ koy xaar bu rombee ñu ànd ak moom mbokk yi madina fees del bi génn këram peñe boppam ba kawar gi nooy yaa ay somo ko peñe mu kaalawu jël làmbaayam ak yéreem ginnaaw ba mu jullee madina génn saxaabu yëpp ànd moom mu ne ca kanam ñu topp ko yonent bi waa këram yëpp génn ay soxnaam ay doomam ay sëtam kenn desu xasan ak xuseyn usaamatu bnu zayd shukraan ñëpp jóg ñu séq yonent bi te xam nañ ni yonent bi bu daan tukki day bantale ci waa këram day def benn loterie pour kenn dem waaye tey mun a soxnaam yéen ñëpp ñëw leen ñu ànd allahu akbar loolu am na lu muy wone ñépp ñëw ànd ak bi ñu dox jëm Makka bi ñu ñëwee ba Zul Xulayfa fa la yonent bi dugg mooy mii xawaa Madina yonent bi dugg na fa ginnaaw tisbaar te tàkkusaan jotut fa la yonent bi jullee takkusaan ñaari rakka ndax dafa tukki fanaan foofu ci zan xulayfa ci xur boobu fala fanaan julit ñëpp fanaan fa ba ñu fa fanaanee yonent bi xëy bi mu xëyee suba teel ñu julli ba pare mu ne saxaaba yi ataani layla aatin min rabbi fa qaala salli fi hada alwaadi almubarak wa qul umratan fi xajj mu ne biig dafa am lu ma dikkal ne ma ay yow yonent bi jullil ci xur wi xuru barkeel wi julli fi waaye yéeneel aj ak umra loolu imam Bukhari génne na ko bi mu ko defee yonent bi continué nag jëm fan màkkatal mukarram bi mu demee ba jege màkka ñëw ba bërëb bu ñaan fii Tuwa fa la yonent bi duggee ñu ngi fa dugg avant ñuy julli fajar ay vers quatre heures du matin la yonent dugg def na ci yoon bi huit jours moom ak saxaabatul kiram huitième jour bi ci weeru zil xijja yonent bi ñëw biir Màkka dugg wax saxaaba yi ñu tàmbale seen aj bi ñu tàmbalee labbayka yi jolli ci ay xol yoo xam ni daa weex tal amul benn danatu shirk wala bida saxaaba yi amootuñu dara ci bokkaale amootuñu dara ci bida kan la ñuy déglu maître bu mag bi muy yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu nekk ci seen aj ba juróom ñetteelu fan ba nga xam ni moom la ñuy wooree yow mu tarwiya yonent bi nag war a jëm mina ànd ak saxaaba yi ñu rëppatal dox jëm mina ñoom ñépp ñu ngay labbay kaw li anna umma al islamiya qad inbaasat dekki na tàkk na focc na mbokk yi minaa la yonent bi jullee tisbaar ak tàkkusaan timis ak gee jullee munaa fajar juróomi julli la fa def munaa la jullee tisbaar tàkkusaan timis gee ñu fanaan fa julli fajar yonent bi toog ci munaa ba jant bi fenk muy yor yor yonent bi génn ne nañ ko waajal gëleemam boobu di xaswa ñu tàggal ko ko yonent bi war ko ànd ak jullit ñi bi ñu demee ba batlu waadi yonent baa ngi taxaw geestu xool ndeyjoor xool càmmoñ jullit ñaa ngi weex tàll ay góor ak jigéen weex tàll yonent bi xool xolam tooy mu xam ni lii barke bu ko yàlla defal la amul benn yonent bu am lii mu am taxaw gis sa mbooloo mu toll nii nga xam ni ay junni junni nit téeméeri junni nit ak juróom-ñaar fukk junni ñoo ànd ak yonent bi li jege madina ak dëkk yi ko jege téeméeri junni ak ñaar fukk la lañu fekk makka ak dëkk yi ko jege fanweeri junni nit lañu fa fekk ak ñeenti junni ak juróom benn téeméer ñoom ñëpp وريانا تبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك يلا وين اليوم يلا دوني لبوك عليه نخم نني تنت يا ولك لنيل خيول يا كوي جخي يا يبرم بور يا يجخ كل نيخ كون ويجي نن ديو برم بي مكي يلا تبي دوغ عرفة موم اكي صحابة مجوك تحونك ورجخي ay directive yoo xam ni dara dootu ko changé ndax su lii paree lépp luy jëmatu ci sharia dafay daal di jeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw ñu jàppal ko gëleemam ñu ne ibnu abbas moo téye ci laxabu gëleem bi yonent baa ngi taxaw ne ayyuha nnaas isma'u qawli فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا من أي نبني دغلو لين خول لين بوكي فا يونت بي تاخو تي عرفات ني مو سوري ني نيك بير مكه تي ويتو كابا غا جيجين ني تي كير يمونو ньо ديم واخو يونت بي تي نيوم لا گنا لير ني تاخو كان موكو جوتليل بروموم في ارجاء الكون كله يلا يمتال كان دوم موي ديم فوني نيب دي دينك مونان ايها الناس اي واي دغلو لين دغلو لين موكو يي بات بي يون لا تي خطبه مي صحابه يي يونتي بي دوخم سي تك با خيم خراتوكو دا بو يونتي بي دوي واخ دانيو ملي ني تاخو بيتي تونكي سين بوم يونتي بي نيلين déglu leen ma amal na dootuma daje ak yéen ginnaaw ak mii ci bërëb bii dootuñ fi daje loolu lu muy tekki dafay tekki ni mooy maa ngi leen di taw ne ayuha annaas inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun alaykum ka xurmati yawmikum haada fi shahrikum haada fi baladikum haada fattaqu llaha fi nnisaa فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحملتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف من أي مني بسنك داي سيني درن أرم نسين ديغنتي سيني ألال الأرام نسين ديغنتي comme ormay bis bii ci weer wii ci dëkk bii waay waay ragal leen yàlla ci jigéen ñi ala fattaqullaha fi nisa ndax kat jigéen ñi dangeen ngeen leen takk ci kull rek yàlla su ko yàlla santaanewul woon mënu leen leen a takk dagal lu ngeen seeni bëy ci kàddug yàlla su yàlla bañoon du sotti waaye nag ba ngeen leen takkee ba pare am ngeen àq ci ñoom jigéen ñi comme ñoom ni ñu amee ci yéen àq bokk na ci yéen jigéen ñi déglu leen àq yi ngeen amee seen jëkkër bokk na ca allaa na furushakum ahadan takrahuna bu kenn dugg seen néeg te buggu leen ko jigéen bu ko def juum nga seen lal bu ca jàmbur toog te neexu leen seen kër bu ca jàmbur dugg te neexu leen su suñu ko defee jéggi ndigal loola am ngeen droit ngeen yeddi leen waar leen suñu bañee ngeen duma leen waaye duma budul gaañu mbokk yi yonent bi nee na na ngeen xam ni yéen a war a dundal yéen a war a loola ca njëkk lay amee maanaam la feen seen manin mbokk yi yonent bi wax lu am solo lo xam tay nit ñi dañ koy foyé mun wa qad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu in itasantum bihi kitab allah wa sunnati bayil na len lo xamni su ngeen ci jappé du ngeen réer muk muk muk ku ko bàyyi da nga réer ñu ne yonent bi ban ak ban la mu ne kitaab allah téere yàlla bu ngeen ci jàppee du ngeen réer mbokk yi ku bañ a réer jàppal ci téere bi téere bii téere la boo xam ni lépp luy sag texe ñu ngi ci lépp lu lay wan àjjana ñu ngi ci yonent bi nee na saxaaba yi amul lenn lu leen di yóbbu lu dul wax naa leen amul lenn lu leen di jañal safara lu dul wax naa kon topp leen téere bii mooy seen imam topp leen téere bii mooy seen sëriñ topp leen téere bii mooy seen ndigal topp leen téere bii moom la war a topp ndax du mbindeef téere la waaye teg leen ci sama sunna su ngeen bëggee dégg téere bii ci sama sunna ngeen di jaar ngir xam ko ñaar yi bu ngeen ci jàppee comme code de la route insha allah du ngeen réer ba ngeen may fekk si yàlla ñu yàlla may ñu mën koo def مكن سيد على نياري إلى خير كتاب الله وسنة الرسول خير لا بتاي بنيت ني غمت ني تيري الله اك سنة يالنتي بي لين لا ني توك مو لين دي تاخ سون لين لا ني ديف مو لين دي تاخ رير ندغالي نينن لا ني جيل باي ندغالو تيري بي خلاتو كينن لا ني جيل باي خلاتو تيري بي توب لين جوخ لين بكان بات لوخو نوب bàyyi ndigalal yàlla xanaa xamuñ ñu xutba bii ña ko fekkee ña ko fekkewul ñoo ci yem saxaaba ya taxawal fekke ko ak ñun ñii ñun ñoo ci yem du réer ndax yàlla garanti ne loolu du réer mbokk yi yonent bi ne waat ayyuha nnaas innahu la nabiya baadi wala ummata baadakum ala fa'budu rabbakum wa sallu xamsakum wa suumu shahrakum وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأتيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم من أي نتني نلن لويرني لا نبي بعدي يننت دوت الأمس مجنا يننت دوت الأمس مجنا كيف كنت يننت لفن يلا دوت اليون كن جنا ومن. ndax man ma mujj ci yonent yi kon bu len kenn gëm loti ne yonent la ngeen gëm ku len ni rasulullah la day fen ku len ni nabiyullah la day fen ku len ni kalimullah waxul deug yonent jeex na tay allah akbar allahu akbar innahu la nabiya baadi wala ummata baadakum amul beneen xeet buy ñëw ci seen ginnaaw sama xeet mooy ba ba àddunay tukki muy ummatu muhammad di ummatu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah yonent du ñëwaat beneen xeet du ñëwaat su yonent naroon a ñëwaat beneen xeet ay amaat te beneen xeet du amaat kon waay waay jaamu leen seen borom doy na sëkk ci jaamu julli leen waxtu wi juróom doy na sëkk ci julli woor leen weeru koor doy na sëkk génn leen asaka yéen ñi am te bu ngeen koy def ngeen def ko teeyu bakkan bu leen ci kenn forcé mbokk yi li yàlla laaj laaj ko ci force nit di la laaj laaj ko ci force nga topp laajab nit ci force am jox ko bàyyi na la yàlla ni defee ko na mu la neexee nga sàggan yàlla laaj la nga bañ keneen laaj la ne damay tabax juma nga joxe damay tabax jàkka nga joxe damay defar armeel nga joxe nangam nangam te loolee ngay joxe la ñu la laaj sañoo te teggi virgule Muhammad ne la joxel azaka nga bañ joxel azaka nga bañ mbokk yi kan moo koy liggéey Iblis mbokk yi yonente bi ne ak leen seen néegu borom néeg bi rek ngeen am muy néegu borom bi ak leen ci mbokk yi tey bu ñu demee. ba ñemee jël suñuy këri diine di ko jox image u Makka dem ba ay nit di wëri bër naan kaaba gi la dem ba ay nit ami teen naan lii zam-zam la mbokk yi umma bi réer na tey umma bi gëlëm na umma bi tardé na lan moo ko def la ko def mooy ay nit ñu jàppee borom xam-xam ndeke yow ay ambassadeur iblis la mbokk yi yonent bi nee top len leen ndigali seeni njiit su ko defee ngeen dugg aljana seen borom mu teg ca waxam ju siiw jene wa antum tusaluna anni fama antum qailun ne wallahi yàlla dana ma taaj ma taxaw ngeen taxaw yàlla laaj len ci man way way bu len yàlla laaj lu ngeen di tontu allahu akbar mbokk yi bu ñu yàlla laajee yowmal qiyam lu ngeen di wax ci muhammad lan lañuy wax lan la ñuy wax dañ koo weddi woon dañoo gëmoon sëriñ diw dañoo toppoon diw mbokk yi ku taxaw ak yàlla wax lii mbokk yi kan mooy muhammad moo gën sa ndey gën sa baay moo gën sa ndey gën sa baay moo gën sa maam gën sa maam mataar gën sa sëriñ du moromam mbokk yi yonent bi dong dong dong ngay wax moo gën sa ndey ak sa baay doo mer keneen ku ñu ko wax nga mer mbokk yi yonent bi dafa sonn ci umma bi ba yàlla ne ko sonn nga sonn nga sonn nga fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta faddan galida alqalb lan faddu min hawlik wallahi yërmande yàlla moo fees ci yow ba nga nooy népp tëdd ci suuf ñu lay joggatoo su la neexoon kenn du la jege su la neexoon nga doon ku dëgër waaye yàlla moo la may mbaax boobu بقي يلمون يرنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كو خرم نيغي ني تي كان تي بوسام ديديت كو خرم نيغي ني تي كان تي تولم ديديت كو خرم نيغي ني تي كان تي دكم ديديت يونت بي مستوى لا بن دك واي دلن دي وان يالا يالا حريص عليكم يا مجا بالمؤمنين رؤوف رحيم ام يرمد لو خامني كنن دوتو كو ام تي ndax keneen ku dul muhammad su amee yërmande ci yow ay doomam ko gënal keneen ku dul muhammad su la bëggee ay soxnaam ko gënal keneen ku dul muhammad lu mu am am njabootam moo ko gënal muhammad fàtte njabootam jël la yow jël la charge taxaw sonn ngir yow ngay nelaw du nelaw ngay dox du dox waxtu wu nekk ma ngay sonn ba yowmal qiyaam yonent bi day ñàq taxaw bu ummaam ñëwee mu ne rabbi ummati ummati mbokk lan la ñuy wax bu yàlla taajee muhammad lan la ñuy wax bu yàlla taajee muhammad wallahi ñun bu ñu waxut am na ay sahaaba yu taxaw di wax te am nañu fulla nañu ko daan defee ci kanamu buur ak baadoola noonu lañ koy defee yowmal qiyaama ñoom ñooy taxaw ne yàlla kii mooy gën ji mbindeef kii mooy yonent bi zéro kii moo indi lépp mbokk yi yonent bi laaj nañu lan la tontu mbokk yi bi yonent bi waxee loolu sahaaba yi am fulla فهابين كن نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت نون دارا نيو سيدة تكالم يالا ني جوت لغا موت لغا كل ري لا هنغ بير وحنغ للا ورلب يالان تبي مون صلى الله عليه وسلم خل بسد مخمن أمنا أي قر أمنا أي قوري يالا أمنا نيو نمو لغي دكي نيو نيو تخون إن شاء الله بس بني دي suñu borom taxawal la laaj la ci laaj ñu ci yow da lañ ko ni matal nga motali nga jotali nga lahi nga biir yonent bi yëkkati baaraamam ak fell bi sallallahu alayhi wa sallam ila sama ne allahumma fashhad yàlla sédel allahumma fashhad yàlla sédel ba muy ñetti yoon sahaba yi sédel nañ yàlla ni yonent bi ne yàlla sédel te gis nga ni sahaba yi séré doju arafat dana ko seede makka dana ko seede madina dana ko seede garab yi danañ ko seede même jaaxal yi danañu seede yonente bi sallallahu alayhi wasallam danañu taxaw ne yàlla kii la ko waroon lépp def na bàyyiwu dara mbokk yi bi yonente bi taxawee ci xutba ba muy waaj a jeex ñu jékki rek seen ko mu sëgg nii di ñàq sallallahu alayhi wasallam bu taxawee di ñàq alquran ay wàcc inna sanulqi alayka qawlan saqiila saxaaba yi am na ndeke am na luy wàcc article bii di wàcc beneen article dootu ko changé ndax ñaari article benn bi mooy début bi iqra bay mujj mooy al yawma iqra mooy départu article bi ma ngay jeexee ci al yawma bokk yi jékki ñu wàcc ci moom aaya boo xam ni soixante-dix mille malaaka ñoo ko wàcc 70 من مرة اليوم أكملت لكم دينكم يا يا محمد يا كفي فهابة أكسى أمة أكسى خير ين يبو تخاو لين ما وخ لين ني بيس ني كي تاي ماتال نا دين جي في نين تخاوي ماتال نا خيوال جي دي اسلام موتالي ناكو دوتو ما گرم بنين دينه ak yàgg say saxaaba wa raditu lakum al islaama diina képp ku bëggati boo defee ma nangu mbaam ma bañ na dellu ci li Muhammad defoon moo ki saxaaba waaye bu dul boobu du sotti mbokk yi saxaaba yi ci lii lañu nekk ba dem àddina ñun ñëpp tey ñu jël ko yokku ci tey ñu jël ko njambaan ci tey ñu jël ko rax ci tey ñu jël ci dolli dolli dolli mu mel ni اليوم اكملت لكم دينكم ديلون تا كيروك بامي ابو بكر ميغي تاخاو عمر غي تاخاو صحابه يي نيب ميغي تاخاو مبوكي بي ايه بي واتي بكا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر جوي جوي متي يرنتي بي صلى الله عليه وسلم نكو ما يبكيك يا عمر ما يبكيك يا عمر عمر لا جاي جوي عمر بن الخطاب لن جوي jooy umar ni yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay yow yonente bi ñun dañoo seetlu ne dañoo nekkoon ci luy dolliku diina di dolliku jibril di ñëw di wàccee nga ñuy jox mbir nag bu ñu lay jox di la jox bañu la jeex na la muy tekki mooy jeexal nga allahu akbar yonente bi ne ko wallahi ni ko waxee umar noonu la amee ni nga ko waxee Umar mu ne naa mu ne ko noonu la amee mbir mi da doon ñëw ngeen di kontaan may kontaan su demee bañ ñi jeex na mbokk booy liggéey ci bërëb bañ ñi la weer bii ngay retraité tàmbaleel defar say bagage tàmbaleel defar say mbir moo tax yonent bi ne Umar huwa kadalik mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ca suba sa mu xëyaat ci tabaski bi xutba waat ci fukkeelu fanu tabaski bi keroog mi ngi war bax la boobu ñuy wax shahba nit ñi ñii ñu ngi taxaw ñii ñu ngi toog xutba tabaski la bii di ñëwaat yonent bi wax ak sahaaba yi ne leen inna zamana qad istadaara ka hayati yowma xalaqa allahu samawati wal ard السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة الهرم ثلاث متوالية ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وقال أي شهر هذا يا بين أي ثم خير جمون والبت كنا جمون الشرط كم نكو يالا بنديون بس بيالا بند أسمان دفا ملني تور بديل سينا ويروي خملين ني جمون دو شاذة بمرم بفكي ويرنيا أبني jamono du neex ba mu romb ko jamono du naqari ba mu yées ko mbokk yi ak mi fukki weer la ak ñaar am na ca ñeenti weer yi ñu ormal ñett yi dañoo toftaloo benn bi tàqale koog ñoom ñett yi toftaloo mooy zul ji di weeru diggi zul xijja tabaski muharram yi yii dañoo toftaloo rajab ma nga ca gannaaw loolu nag bu yaboo ngeen xam taxaw ni sahaaba yi waaw sahaaba yi tekk di ko dégg mu ne leen ayu shahrin haada ci ban weer la ñu nekk lii jàngalekat moo koy def dafa bëgg dellu si xelu sahaaba yi ñëpp ndax léeg-léeg nga déglu dara muy neex di neex ba nga fàtte ndax neexaay bi moo tax mu taxaw def lu mel ni itnaab ne leen ayu shahrin haada ci ban weer la ñu nekk sahaaba yi am teggin am yar du ñu wane xam-xam ci ci kanamu ku leen raw saa bëgge xam xam-xam ci kanam ku la raw su waxee ne ko man xawma bu la laaje ne ko xawma ma na mu dollil la sahaba yi am tegg ne qul na allaha wa rasuluhu alam ñun kat jàpp nañ ñi li nga laaj ni yàlla dong nga ko xam ak yow mi mu ko xamal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne tek déglu ba àll na seen ndaw yi nee na ñu déglu ba ci yàgg ñu foog ni dana ko jox beneen tur bu dul turam yonent bi ne leen alaysa zal hijja loolu xatib moo koy def wax ba ci yàgg nit ñi wax mu ne tekk ban weer lañu ñu nekk ñu ne ko xamuñu mun mu ne tekk bu bët yëpp xool ko mu ne xanaa du weeru tabaski saxaaba yi ne ko ah mu ne ci ban dëkk lañu ne mu ne tekk ba ñu foog ni beneen tur bu bees lay waxaat ba càgg mu ne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alaysat il balda xanaa lii du baldatul xaram muy màkka sahaaba yi ne ko aha kay sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa ay yawmin haada ci ban bés la ñu nekk sahaaba yi ne ko yàllaa ko xam ak yonentam bi mu ko xamal yonent bi na tekk ba ñu foog ni da ko tuddee beneen tur mu ne alaysa yawmun nahr xanaa du bésu tabaski saxaaba yi ne ko naan waaw waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee ñoom noona waar leen delloo leen ginnaaw ba ñu pare nag mu ne gaa ñi waajal leen ngeen dem wër kaaba gi ñii pare pare ñi des di continuer suñu paree ñu dellu madina sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yonent bi nag aj na ajam gu mujj ndax xamaloon na sahaaba yi ne leen amal na du ñu dajewaat kon ku dégg dootoo fàtte ku jàpp dootoo fàtte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñibbi Madina moom ak i sahabaam sahaaba yi ànd ak moom keroog bi yonent bi ñibbi si doxam gaawul yéexut mi ngi tudd yàlla lu baree bari سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله بأمنا ميمونة لكو يا رسول الله إنك لتذكر ذكرا لم تكن تذكر به léegi bëril nga ni tudd kàddu goo xam ni bu yonent bi génn néegam fu mu jëm mi ngi wax loolu allahu akbar yonent bi ne ko inna rabbi qala li inni sa ara alaman fi ummati sama borom xamal na ma ni danaa gis métit ci sama xeex su loolu amee naa sàbbal yàlla sant ko jéggalu ko subhanahu wa taala yonent bi mujj naa nekk comme yëre bu ràpp ci jaamu yàlla la mu doon def yépp mi ngi koy yokk ci jàng alquran mi ngi koy yokk julleem mi ngi koy yokk mbokk yi woote gi mat na suuf si daj na risaala bi jolli na saxaaba yi ñu bëri jàll nañu woote ji bi yonent bi ne li yuballiga shahida minkumul ghaib am na ca saxaaba ya ñoo xam ni dellootuñu madina delluwaatuñu Madina yonent bi nee na ku dégg ci yéen na jottali am ñoo xam ne ñii jaar nañ jëm Filastin ñii dem nañ Moyen-Orient saxaaba yi mbokk yi seeni bàmmeel dafa tasaaroo ñoom ñëpp ngir ñu jottalil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yonent bi bi al yawma akmaltu lakum diinakum wàccee ci moom ak bi muy gaañu quatre-vingt-un jours la quatre-vingt-un jours mooy lan Deux mois 21 jours 81 jours la yonent bi